fii ma dëkk pour bañ li nga xam ne moom la ñu mooy convocation donc de masse wu coono waa cité kër góor gi nga xam ne ñooy dëkkaale yi dañu naan àq dëkkaale dafa am waaye moom loolu moo ko arrangé fépp mun a làqutoo rek même bu def ay doomam nëbb leneen ña fa newoon ci biir ba muy député yooyu loolu laa njëkk a naqarlu kon naqaru tamit défini bi nga xam ni moom la ay responsable ci def ñu wote loi ba ci ay député pour tere ak mbas li ñu nekk ak li mbas li def ci dëkk bi ñu voté loi boo xam ñoom ñoo ñoo ko voté député ñoom ñu dem ba bopp di fa majal xam naa di xaaral ni Sonko président la nekk ëllëg ñu war a ànd ak moom kenn am lu ñu war a am waa droit de l'homme waxutuma seen seen seen taxawaay ñu taxaw ñoom déggoo leen seen di gën a métti lu nag man taxawaayu li nga xam ne mooy sen mbokk journaliste nekk ci ay plateau daf ay de presse di kontaan maanaam alkaati yi jàpp gaañ leen di way te biir man xam naa leen ah ci plateau yi seen tout temps bi ñu def journaliste boo xam dafa taxaw di wax daw si ki nga xam ne moom mooy jiñaate ne moom la ñuy tooñ dem ba ci ay njabootam dafa gàtt si sëram dafa oyof mais yooyu yaakaar ne avocat moom jël jël li ci war te kaaraangeem sax la lu ko mën a dal journaliste yooyu dinaa ko di wax mais loolu doyul donc yaakaar naa ni loolu am mu ñu ko def ñooñu ñëpp. maître Djibril War est-ce itam euh, nguur gi moo def lu ñu mën a tuddee provocation ndax gis nañ ne yóbbu nañ fa ay takk der donte nee nañu du woon dañu doon jëli Ousmane Sonko waaye itam daanaka mbir yi leerul woon ci bopp askan wi ndaxte sax nee nañu annulé woon nañ convocation bu yàgg te kenn yóbbu ko est euh, provocation bi ci yéen la jógee. li ma la bëgg a sax mooy moom daa député balaa mu koy wax rek ku làqtu la la ko boo ku ragal yoon plateau ay ñoom nguur boobu nañu jàngiwaat professeur agrégé ñoom ñoo yore doctrine ku nekk nag yem sa place li ñu naan inviolabilité ak irresponsabilité mooy li nga xam ne mooy aar bi ci wàllu liggéey bu nekk assemblée nationale lu mu a wax kenn du ko ci mën a topp mais du ceege muy saagaay wala mu def dara tey dëpp tey moom li muy wax naan ay immunité boobu muy wax tey bu xeexoon wala mu defoon loo xam ni flagrant délit la comme li nga def actuellement donc convocation bokkul ak poursuite ak jàpp police bu ñu la convoqué man man man man convoqué nañu ma tribunal ma nekk président commission de loi mais dama dem dafa naa seet port yaa ngi wax ne nga war a jiite réew mi koy boole léegi nag loo xam ni vraiment bi moom la wax moom la loi en fa partie ba la ñuy wax benn kenn mu la jàpp di la topp di la seet pour jàpp la convocation la parce mujjee ci jaaru juge tere mooy que juge wala procureur ne dafal enquête mais objet may nañ ko mu woo ku nekk devant la police pour entendre la entendre na bu la neexee ne man waxuma tontuwuma aw ma ji lu ma ciy wax dem sa yoon kon yaakaar naa loolu ñuy wax teguñu ko fenn suba sa alkaat yi wax nañ ko moom ci boppam ne ko ñëwuñu pour loolu dañoo ñëw pour aar dañuy mën a respecter li nga xam ni mooy li ñu jël ci ndogal ci wàllu Covid bi kon yaakaar ni loolu rek dèjà mu def mu def attroupement boobu rek tey maye na yoon tey ci wàllu sa sàkk benn ñàkk sàkk bi ñu ne ko rappee ko yóbbu ko bëgg naa ni ñuy ñëpp ay yanaamaar yooyu ñooñu ñëpp képp koo xam ne loolu yaa créé attroupement boobu yoon mën na nag li am parce que moom combat am ay waasoo la ko defee tout ça mais état du Sénégal yaakaar naa état soo gisee yow tey nga dox ci dama ko ñëw état moo am bu doon tey ji yow boo génnee nekk journaliste yi dogaale duma la yàq sa mbir kon kon kon état dootul amati. mais maître Djibril War ñu bari jàpp nañ ne itam nguur gi daanaka soo moytuwul mën na jaaxase réew mi bu fekkente ne dem na jusqu'au bout de cette affaire maanaam jàppee Ousmane Sonko gis nañ sax yéen a ngi war a def euh, li xam ne moo di am ndaje ni ki ëllëg ak itam dem ci li nga xam ne moo di levée de son immunité parlementaire tey gis nañu ay kàddu yu bari bari di jóg ñenn ñi di tiit jamono ji ci réewum Sénégal est-ce que yéen itam tiitu leen dara euh, ci mbir yooyu la. li mu la ci may loolu sax assemblée Pastef lañu man sama wàllu bopp waxu na sama porte de la presse man jël naa sama jëm sama doom ak sama njaboot fi ma dëkk ko laal du ma laal sañu ko attaqué de mais ñoom waa Sonko seen bopp responsable bi ngay dégg ñu toog foofu ku ma ci lebal dinaa la fay mais li ma lay yëgal aussi moom mooy état mu nga xalaat loolu la bëgg a def vraiment état bi def la noonu quoi moom li mu yaakaar si rek terrorisme yi amoon ay Nigéria ci loolu la nekk ni actuellement bi ñoo na yaa ngi dégg foofu dëkkukaayam léegi xeex bi xeexu waasoo la ak seexu dëkkukaay ak askan mais yooyu yëpp bi muy def muy biño naa ku nekk léegi nag moom man njaboot gi laay at nday yeeg bàyyi bu dee kilifteef bi ci ñoom ba léegi ci jàpp am nañu ci jàpp yoon dina dal sa kaw parce que audience criminelle nga kon nag man njaboot gi laay wax waa jur yi man nag waa APR yi may wax ñun suñu bopp leen ñu ngi menacé député man sama quartier fi ma dëkk mi marché bi supérieur demandé naa ba xam ñëpp yi militaires yu responsable yu fay yeewu donc ma jëlaa say matukaay yi moom j'ai mon port ko keroog ay ñu yor ay pétal yëg ci kaw ba gis te loolu yaakaar na ni police dina ci def lu war a mais li ngeen jàpp ni Sénégal vraiment ku tiital état da nga xamul état ñoom xamuñu état en fait xamuñu xamuñu ci kanam yow lu bët xam ne Casamance foofu laay terminé armée du Sénégal mi ngi lu dara jaru moom am lu muy def di yëngal waa duñu la ne ay mbokkam lañu armée wala taxaw léegi def lu kenn musul gis ci Sénégal képp koo xam ne làqu yi ak saay-saay yi ñuy di dindi moom mu naan léegi daal moom daal moo parti nam bu taxawee man yaakaar naa ne kooku a am tàcc ni sa ay xale du koo mën a doon heure boo jàkkaarloog di nga ko réfuté réfuté na leen. War rédaction Walf ñu ngi lay jaajëfal. ah mbokk yi ku jàppul sa sàcc rek daf laa ne. waa mi naan général générale si nañ. yow mi bëgg nag kaaraange moo xam sa bureau sa kër.